Fatou Kiné ñu dem euh, Burkina Faso foofu nag euh, fukki nit ñoom ñoo fa ñàkk seen i bakkan ci benn miin boo xamee ni dafa kalaate dafa kalaate muy ab euh, mine artisanal ca Fada Ngourmala ma la ma nga féete rek ca penku réew ma lu toll ci juróom nag am nañu ci ay gaañu gaañu bu ñu sukkandikoo ci ab bataaxal bu tukkee ci gouverneur province ba nee ñu nag seen daamar boobu dafa nekk rek transport en commun benn ndell nag daal di kalaate ñu ngi wax yi tamit ne foofee daanaka booy xool ñetti at a ngi nii ah, dañu am ay jafe-jafe ci wàllu kaaraange ah, muy nag dëkk boobu ma wax léegi muy Fadangouroumaa féetee ca penku Burkina Faso. Ah, ñu àddu yi tamit ci beneen kalaate bi yoon benn kamion camion citerne la ca Johannesburg la xewee bilan ba nag yokk na ndax fi mu ne mi ngi ci fukki doomu aadama ak juróom-ñett yu ñàkk seen bakkan juróom-ñeent nag ñu nga doon liggéey ca kër docteur boobu ñu duppee Tambo Mémorial daanaka yegg si ba foofu tàkk-tàkk ba euh, plafond ya nag euh, daal di rek euh, daanu muy plafond bâtiment ya fanweer ak juróom-ñaar ci doomu aadama nag bokk na ci lim googi ñaar fukk ak ñeent ñoo xamante ne nii nag ay aji tawat la ñu nekkoon ci kër docteur boobu fukk ak ñett bokk ci personnel soignant ba ñoom ñëpp nag ñoo àndandoo am ay lakk-lakk yu metti camion citerne boobu nag mu ngi jóge woon ci bëj saalumu réew ma yeboon lu toll ci fukki junni ak ñaar ci litre gaz GPL ñu dem yi wax nag euh, ci kooku faatoon ay kurde euh, ci àjjuma ji mu toll ci juróom benn fukki ak juróom-ñeent moom waa jooju nag gannaaw bu mu dëggalee boppam euh, ci kanamu enquêteur ya ne dafa bëggoon a rey ñu dëkkul ca ñu fekkul baax ca réew ma maanaam réewum France loolu mu mel ni kon mujj naa sotti ca moom moo tax sax euh, bu ñu xoolee amoon na ab doxu ñaxtu euh, bu ñu amaloon ca Paris waa jooju nag euh, ci fàttali fi mu ne mandat de dépôt nañu ko démb ca altine ji ñu toppee ko nag mbirum faat bakkan waaye tamit mbirum boddi konte xeet loolee la ñu ko jàppee moom waa ji mu mel ni la mu defoon daal am na fu mu ko wékk bu nu sukkandikoo ci procureur bu Paris ndax dafa yàggoon wax ni moom daanaka ci atum 2016 ba tey bu ñu seetloo dañoo mësoon kon dajji këram sàcc ko waa daal mu mel ni dafa am rek haine jëmale ko ci étranger yi waaye li ci gën a yéeme nag euh, fële moom ca euh, Paris euh, waa fële nag maanaam kurde yooyu nga xamante ne dañ leen a rey Ankara dafa tax nag mu daal di sampub laaj ne Paris daal am na lu muy ruumandaat ci mbir moomee ndax loxoom setu ca ndax bu ñu xoolee sax ñoo ñee doon manifester dañu bokk ci parti PKK ñu jeexalee ak Russie Russie nag fi ne dafa teg baaramu tuuma Ukraine dafay amal ay cong jëmale nag ci benn diwaan bu nekk gën ko xam euh, ci Bryansk euh, cong googu nag tax na ba Russie mer lool di sàkku nag ci Ukraine na tontu nu mu gën a gaawee ci yëf lu ko mooy nag euh, dana daal di rek kon dal ci kawam mu nekk nag ab sabotage bu ñu ko mënee tuddee noonu ndax bu nu sukkandikoo ci way kaaraange nekk ci Russie na dafa am ay saboteur yoo xamante ni dañu ñëwoon dugg ci diiwaan boobu waaye saboteur yooyu sax ñoom Russie mujj nañu leen faat muy xibaar bi nga xamante ni moom la ñu mujjee jot tukkee ci service de sécurité bu Russie mu gënoon fës ci xibaaru bitim bitim réew yi Cheikh Tidiane Diawo. jërëjëf euh, Fatou Kiné Deme ñu bàyyi la nga dem euh, yeggali sa ndékki dañuy dem ci météo euh, ak Oumy